Non, par rapport auparavant, vraiment, ce que nous avons vu euh, cette année-ci, que ce soit les locales comme les législatives, bon, euh, ce, que nous, euh, ce que nous espérions, on ne l'a pas vu, vraiment. Bon, pourquoi Peut-être parce que c'est la chèreté, en fait, des, des produits et des matières premières. Voilà, bon, ce que nous parvenons, parvenions à, à acheter comme t-shirt, les t-shirts hein, vierges, nous les achetions au moins à 600 francs l'unité. Mais aujourd'hui, ce qui, ce qui, ce qui s'achetait à 600 francs, aujourd'hui, on l'achète, donc on l'a à 900 francs ou à 1000 francs. De ce fait, s'y ajoute maintenant les produits, l'encre, alors donc vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus quand même le vendre à 1000 francs. Bon, il faudrait au moins l'augmenter jusqu'à 1500 peut-être, hein, maximum 2000 pour, s'en sortir. Mais malheureusement, bon, euh, les politiciens n'ont pas voulu comprendre cela. Euh, bon, c'est pourquoi on n'a pas vraiment, on n'a pas vu euh, grand-chose en fait cette, année-ci hein, en ce qui concerne les élections. Pour nous, en tout cas pour nous les sérigraphes. Et, c'est la même chose à Dakar, parce que moi, en fait, nous avons quand même, nous avons, nous avons une association, que ce soit nationale comme, comme régionale. Voilà. Donc, donc là, on est membre, et on n'a rien vu. Voilà, donc on n'a rien. Moi qui suis en fait le secrétaire général de l'ASTH, ben, vraiment, en toute franchise, nous n'avons rien vu ici, en tout cas à Thiès, comme à Dakar aussi. Elles ont été faites à l'extérieur, peut-être, en tout cas, de toute manière. Bon, puisqu'on ne les a pas fait ici, c'est parce que tout simplement, donc on les a commandées ailleurs. Euh, je ne sais pas si c'est en Chine ou, ou, ou peut-être en France ou ailleurs, mais de toute manière, on ne les a pas commandées ici en toute franchise suma day wax rek euh, suma day wax rek li li am mom vraiment euh, ren mom des na mom que ce soit local que ce soit législatif, bi nga xamné ni mu ngi wajé jeex ñu ngi gaay yaa ngi clôturer vraiment vraiment gisuñu affaire yi bon li waral lolu moy cherté cherté des matières parce que aussi tamit gaay nga xamné ni euh, les partis politiques yi nga xamné dañ daan ñew di liggéey lu ci ñun ñu leen ko doon defal supposons t-shirt 1000 francs tay bo leen ne 1500 wala 2000 bon ñoom il peut pas comprendre cela te te loolu yëpp li waral mooy ah lépp a cher t-shirt cher na encre yi cher na waaw yeneen yeneen matières yi ci des yoo xam complémentaires yi itam dafa cher waaw donc loolu moo presque bon man dama yaakaaroon ni sax mbiri yi sax bon Dakar le Dakar le des la tak mais sama natango yu nekk Dakar ñoom aussi tamit suñu ma su ma ñoom dañ may woo fii sax di ma naan xanaa yéen yéen a yéen a jël commande yi quoi yéen a ko jël ma ne leen non non non ñun jëluñu dara parce que ñun presque amul kenn ko am fi parce que ñun am nañ benn association bu ñuy wax ASTH euh, euh, alors moi je suis euh, je suis même le secrétaire général ah mais mais mais gisuñu dara waaw on a essayé même de se rapprocher en fait des des des qui quoi des leaders politiques xam nga essayer de discuter avec eux mais bon dañ lay promettre rek mais mais gisuñu len bon dégg man ci luma ma nenañu nee nañu dañuy jéggaani diko yobbu yóbbu di Chine. ndax dëgg la am déet en tout cas loolu laa dégg waaw nee nañ koy dañuy jéggaan di ko yóbbu Chine te alors que ça nag ça ne devrait pas se passer comme ça waaw ndax wax dëgg yàlla ah euh, suñu sañoon wax dëgg yàlla mbir yi ah des fii waaw nit ñi mën cee maanaam euh, population bi mën cee mën cee mën cee mën cee bénéficier wu quoi voilà profité ci parce que aussi tamit ah, euh, emploi ñun dañuy dañoo dañu yor ay employés. suñu sañoon aussi tamit affaire yi des fii pour ñu mën am matière waaw pour mën liggéey